ah maire bi daal maire bi daal moo xëy raxas ko nii ba mu set quoi dañoo waxoon ne dañ ñu koy dindil quoi avant ñuy julli mais après julli bi lañ ñëw jox ñu ay sommation quoi raxas fii ba mu set wecc quoi. waaw c'est que lii nag moom xaw na fi xaw na fi yàgg mais daanul demee nii quoi waaw mais comme euh, maire bi ni mu ko defee ak kee ni mu ko daan defee bokkuñu waaw kii nag moom euh, avant ñuy julli mënoon nañoo jox sommation ne seen bagage yëpp na ngeen ko fi jëlee. mais joxuñu sommation dañoo bàyyi bañ julli ji ñu fekk fi ñi nga xamante ni ñoom liggéeyuñu fi sax parce que euh, seen jaay ci Sandaga lañ leen jaaye mu des ñu ñëw fi ñu jox leen sommation bi waaw ñun si loolu lañ ko déggee quoi mais nekk na ñun ñun carrément lañ ko jox mais ba ñëwee dem jël leen seen bagage comme nañ ko déggee ñun jël leen seen bagage respecté nañ ko jël leen seen bagage dem denc ko. na ñun contre ñu sax ñu organiser affaire bi quoi bañ mu ëpp mais contre nañ nag xëy jëlee fi nit ñi ñëpp te yow kër yow benn boo xam ne war na mën a permettre nit ñi ñu dem defi leneen. créé woo ko quoi li lu muy ya, créé moy dañuy demat jël gaal rek parce que li ñu yor bu naré jeex dañuy jël gaal dem parce que wax deug yalla projet bi ñu doon jaay ñun gis nga suñ bracelet yeeg yëpp ñun lepp lañ xex lu ñu jaay jënd nañ ko quoi mais dañu nek ba tok nak di wone ay tank yo xamné ni d'accord ñu si te lii kumba am nday kumba amul nday la gis nga li ni li yëpp ci territoire bi mais dañuy tànn ñi ñuy jël ak ñun du jël quoi ils ont là pour ñu am doolé quoi di ñu dëggate ñun ñi nga xamné amuñu doolé lool rek lañ fi nekké mais et jaay kat yi ambulant yi fu ñu nekk nii marché du marché la nekkuñ fu dul marché boo xoolee parcelle sax amul ambulant man marché joor rek nga koy dégg marché joor kasa kasa kasa te diggante bi matu sax 100 mètres wala bu ko matee si la mais ñoom mënuñ ko sax daal maa ngi koy invité maa ngi koy maa ngi koy woo pour mu mu jàppale ñu xam ne ñoo moom ñoo bokk ñoo bokk li ñuy xeex waaw mais ñun fii nag lañu am wax dëgg yàlla bu ñu amoon leneen nag dañuy jël kenn euh, toog si mbedd mi di jaay loolu gënalu kenn man gënalu man su ma sañoon yor sama place di di liggéey di tëjëg a tëj non ñoom yóbbuwuñu fenn waxuñu dara tamit xëy nañ rek ñëw daaji suñuy taabul ramasser damm ay taabul jël yóbbu ak seen i dof yooyu ñu àndal xaw ma ay agent lañ xaw ay dof man je les comme ay dof donc ñëw nañ damm def lépp mais nguur gi moom wax dëgg yàlla defagul dara pour ñu gisaguñ dara ah pour l'instant moom ay théorie si lañ ne parce que bëri na lu ñuy wax loo xam ne gisaguñu ko léegi nag comme ñun ñu ngi fi dañ doon xeex pour procès bi procès bi ñu doon jaay bu fekkee ne gis nañ suñ bopp ñu ànd ak ñoom bu ñu bu ñu ci gisul suñu bopp tamit ñu jaamaarloog ñoom rek parce que ñoom moomuñu ñu ñun utuñu si ñoom dara lu mooy organisation organisation rek la ñuy ut si ñoom utuñu si ñoom tous kooku moom c'est clair et net bu dee gis nañ lu ñu jaral ñu ànd seeg ñoom bu ñu ko gisul rek jaamaarloog ñoom moomuñu ma utuma si ñoom dara organisation rek créer condition yoo xam ne dinañ mën a dund si dëkk bi convenablement mais pas di yëgati ay sénégalais di bàyyi ay pëlëfut à côté loolu moom duñ ci d'accord mukk ak koo mën a doon